léegi professeur boobu dafa bëree ak euh, euh, combat bi bi bi passé sa diggante ak euh, sa mbër mi nu mu tuddati sax bi comme combat bi. mujjee saa ñaambur saa ñaambur nga jóge ci am ñeneen ñooy yóotu ñeneen ñooy tudd ñoo xam ne tey ku leen dégg nga tudd leen ci làmb day dar gémmiñam mën nga ñëw limaat benn par benn. dootoo ko dolli tey laa koy wax mu gën a leer. Serigne Ndiaye. Serigne Ndiaye deux bu Fass Serigne Ndiaye nee na kenn bu kenn mënu ko maanaam maanaam gars yi dañ koy daw waa léegi lan moo tax mbër yi mën a toog fi ñu toog naan gars ñi dañ may daw may ñoom it dañuy dawe déet mais Serigne Ndiaye kan la fi daw. Serigne Ndiaye. waaw Serigne Ndiaye non Serigne Ndiaye man ba ma dalee coow si Serigne Ndiaye yàgg na. mais Serigne Ndiaye yàlla xam na ni. Mhm. buñ ma ko joxoon suba suba ma jël ko. d' accord mais est ce que promoteur tey ñëw na contacter wax la lu jëm ci wàllu Serigne Ndiaye. non duñ ma ko wax sax parce que la plupart bu ñuy tëgg combat yooyu dañuy xool ki nga xamante ni moo gën a nekk actualité ñu njëkk wax ak moom bu d'accordul dootu ñu wàcc fi ndax man wax ak man day yomb ndax man boo ñëwee waaw laa lay wax gongo mooy sama laamin kon da nga jàpp ne promoteur mën na am ñu wax ak Serigne Serigne décliné barki Serigne Touba bu ma ko jàppee sax dama koy daan teg si billaahi wallaahi waxuma la sax lu may làmbatu ah yow yow yow da nga am fit wala da da ngaa yeb Serigne Ndiaye wala wala da ngeen a tase fenn barki Seydouna Ousmane Noreyni buñ ma joxee combat Serigne Ndiaye billaahi ma daan ko jéggi ko mosu leen tase noo non ñu taje dama ne la mhm. xoolal ñii ñëpp ngay dañ ma dajul buñ ma dajoon noppaliku si làmb Serigne Ndiaye. Reug Reug bañ koy coow sax soo waxee bal tàq sa kaw parce que dafa xew nekk actualité mënul ñàkk hmm. mais ñii ñëpp buñ ma lañ joxee barki Seydouna Ousmane Nouri ni ma daan leen maanaam man musuma wàcc làmb Serigne Ndiaye ay ñoom xeetu Reug Reug yi maanaam consort googu noonu ay ñoom général Malika mbër yooyu man taay ñoom laa gën a si. parce que xam nga loolu ñoom lañ fi bax te man bëgguma kuñ fi baax may déranger mënu ma nekk di ba pare ñu may nëbb jant bi mënta ne ñooñu noonu koo ma ci jox ku ne ma daan la si ay ay waxtu barki Seydina Ousmane Noreyni. mais mbër nag ñooñu boo leen bëggee daan bala nga bëgg a ñoom di nga bëreeg ñoom parce que ñoom même bu nekkul lutte avec frappe bi ñu ngi ci lutte simple bi. d' accord leen fa. d' accord xam nga mën naa nekk. Ah. donc man boo gisee may wax di leeral côté bi mhm. dañoo tàbbi fu ma bokk. tàbbi si fi nekk muy lutte avec frappe xam nga xaw ma si si si si si si si mbapat yi donc su ma ñëwee ba ma fa yóbbu dama dégg ni ñoom dañoo dañoo xaw a tëlee am ad adversaire c'est-à-dire waaw ku leen ñe ku ñemee dëkk yu ni mel wala ku ku ku ku bëgg dañ koy xaw a manqué te man fii ma toog man ñooñu rek laay wër ay ñoom Serigne Ndiaye yi buñ ma leen joxoon suba suba suba ma jël seen avance ñoom waruñu am avance parce que xam lox loolu man bëri naa dix ko dix neuf combats Serigne Ndiaye bëriwul dix neuf combats hmm. cinq victoire ah trois genre yooyu. saa yi bul bul bul saltel waay. non non ah, non non amul loolu man maa ngi ci 19 victoire ma ma ma maa ngi ci 19 victoire benn défaite laa am. mais 20 combats laa bëre fi mu ne nii. boo boolee sama combat euh, bi nekk euh, Aliou Ilimanel Fall. ak Diourbel nga boole combat yooyu day nekk 20 euh, combats. ma ba def ci 10 19 19 victoire. bàyyil booy bi <laughs> bàyyil booy bi. ta doon daanu ci ñu ko te ñu ngi noos booy lii noos bu ko yàq. ah man waaw ah, est boole que. <laughs> boo boole arène national ak Iba Mar Diop yaa ngi ci 20 combats. day nekk 20 combats. waaw léegi imagine toi 20 combats benn défaite laa ci am am naa ci 19 victoires hmm. Serigne Ndiaye maa ko gën a riche palmarès. bëri mbapat mbapat dama ko bëri ba mu jeex mbapat dama xam ñaata combats laa bëri mbapat. 35 hmm. combats. ak ñoom Oninga est-ce que xam nga ni jaar nañ fi. Oninga jaar na fi. Lassander jaar na fi. ñaari yaar di xam nga ni jaar na fi. bat lañ sigi xanaa yëg nga ni jaar na fi. waaw luy loolu. <laughs> ñoom ñëpp laa daan ñoom ñëpp. ñoom ñëpp. mais à part à part. ay ñoom xolal na ko yàlla yërëm. Mhm. Modja. Modja yoof lañ ko fekk. ñoom ñëpp jaar nañ fi ñoom ñëpp. mbapat bi dama leen ci génnee ñu dem toog. Hmm. kenn ku ci nekk dama ñëw jox la sa cadeau nga dem. ñoom ñëpp nag. moo tax mbabat du loolu du loolu mooy sama problème quoi xam nga sama problème lan la léegi il est temps ma prouver si arène bi comme tout le monde. te yow fi nga bëgg a prouver laa bëgg ñu jox ma ko ngir yàlla war a suul yi ma bëreeg moom barki Serigne Touba Mbacke du ma ko jël yem ci dama ko jël pour daan ko c'est pas que dama ko jël pour bëreeg moom aw ma benn inter su ma deekee su fekkee dama bëgg a bëre bu am buzz yu ni mel kon dama naan ay jox leen ma ay genre ñoom saakees yi xam nga parce que ñoo ñoo yor xam nga lu ma boobu quoi mais comme wóoruma lu am coow ak amul coow dama am mënin bu koo wane qualité ak quantité Serigne Ndiaye am na qualité am na quantité mbër champion la ndaanan ku lu la ndax ko jàpp franc def ko nee mu ko def xam nga ni ndaanan nga mais man dama ne la barki Serigne Touba bu ñu ma ko joxee ma daan ko Serigne Ndiaye waaw mais Serigne moom dañuy taxaw ci moom tuuti parce que Serigne ñu nekk ci làmb yëpp nangul nañ ko gabareem am dooleem waaw ñëpp nangul nañ ko mën a bëreem waaw te yow da nga ne da nga koy jël pour daan ko ça veut que da nga sentir ne am nga loo ko ëppalee waaw ci lan la loolu du la ko wax bu arbitre sifflé ba mu jeex tàkk nga koy séen. ah déet mbër faaw wax ko nag. non lool du ma wax du loolu du la ko wax xam nga tey tey duñ ko tënk duñ ko tënk si doole buñ ko doon tënk si doole. Ah. kon Baboy du daan Bombardier. dëgg la. Baboy du daan Bombardier uh-huh. foofu na leer te daan naa ñëpp doole Serigne Ndiaye ndax Gambie bii rek toj naa ko frontière Gambie ah. soq cousin Africa noir barki Seydou naa moo xam ne moo ëpp Serigne Ndiaye ñaar. mat na ko ñaar soq xam na li may wax drapeau bi gis na ko ba ma ko ba ma daanee ba ma daanee Afrique après moom laa ko indil ñu dajee mbaaru gambi si yàpp yi ma tegal ko na ko soq daan naa sa ba hmm. mu ne ma daan nga ko am doole ku mën a bëri mais yow ndaanaan nga soq ma ko wax mu ngi koy dégg li mu ne lépp dafa am preuve kookoo ëpp doole Serigne Ndiaye fukki junni yoon Africa Noir du moromam jaajëf 130 kilos mbokki internet yi Saliou Mané moom la ñu nekkal ni muy mbëru Grand Yoff nekk mbër Euh, national comme moom ni mu koy waxee bàjjen national. bàjjen ma non bàjjen bu kees polygame. waaw moom mooy bàjjen national. <laughs> mais man Saliou maay <laughs> kon loolu leer na <laughs> euh, mbër la moo xam ne toj na.